Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi am euh, contentement mbégte di leen nuyu bu baax a baax di leen euh, ziar te di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay bu baax di dellu siwaat ak yéen ci li nga xamante ni moom moo di wasaare tey nag ñu ñëw ci wasaare célébrité daal di fiy dalal koo xamante ni ndaanaan la koo xamante ni vraiment ñu si bëri fii ci New York ràññee nañu ko xaw ma ndax ca biti waaye fii moom ràññee nañu ko bu baax a baax a baax a baax duñ def lu dul dalal ko jox ko mu nuyoog askan bi moo xamee ñu ngi lay lay ziar. waaw maa ngi lay ziar maa ngi di la fay. Euh, mbokk yi ginnaaw bi mu nuyoo ba pare ñu ngi leen di ñaan ngeen bës cloche bi euh, su ko defee di ngeen gis cloche bi si boppam dina am ñaari nopp yi bootu ci kawam euh, su ko defee mooy wane ni abone ngeen ci chaîne bi saa bu ne waxtu bu ne di ngeen mën di am vidéo yi nga xamante ni moom la ñuy dugal Mouhamed tey bu ñu doon laaj kan mooy Mouhamed tey loo ñuy wax. ah Mouhamed Sénégalais la rek Sénégalais la bu dëkk New York fii nii ah nekk euh, sénégalais boo xam day yëngu ci business euh, di yëngu ci promotion euh, di yëngu tamit lépp lu jëm ci société. ci ci ci ci wàllum business bi naka ngay yëngoo ci business bi ban ban business ngay yëngu carrément. waaw business façon business ñu yëngoo bëri na ñu ngi yëngu ci énergie bi maanaam ci mbirum courant ñu ngi yëngu ci mbirum promotion ñu ngi tamit yëngu tamit ci mbirum média. suñu mbirum mhm. média. bi lan la rajo la wala télévision la wala lu mu doon. waaw média bi euh, ñu ngi yëngu ci euh, ci média wu télé ñu ngi yëngu tamit ci média wu rajo en même temps tamit ñu ngi yëngu tamit ci média wu internet tamit. Mm. télé bi nu mu tudd. mi ngi tudd Nako Dal TV. Nako. Dal TV. Nako Dal TV. waaw waaw mais noonu la noonu la mën a demee. mais loolu kañ kañ kañ kañ nga si taxaw kañ lay génn. fu mu toll boo ñu ngi ciy liggéey ak euh, ak état bi. fu mu toll nii euh, jot nañu ba pare suñu récépissé donc euh, lu si des rek mooy tàmbale liggéey bi euh, pour l'instant rek ñu ngi en ligne ñu ngi nekk en ligne ñu ngi liggéey daal. état ban nga ciy liggéeyal bu Sénégal wala bu États-Unis d'Amérique. bu Sénégal. Ah, bu Sénégal waaw. ni mën nañu jàpp ni kañ lay pare la kañ la liggéey bi yëpp di pare liggéey bi ñëpp mun si jublu. waa kañ lay pare moom yàlla xam amuñu dañuy jàpp moom da ngay jàpp dat waaye yàlla xam kañ lay pare pour ñu tàmbale. Hmm. mais pour mu gàttal daal ñu ngi liggéey. te incha allah euh, nañu nañu nañu commencé. Euh, employé yi nga ciy jël ñoom ci fii li ñuy nekk ci réew mi wala sa Sénégal la ñuy euh, dafay nekk ñoom seen dafay am ñoo dafay nekk dañuy nekk Sénégal am ñoo xamante ne dañuy nekk fii nii ci réew bi fii États-Unis hmm. maanaam kon liggéey la boo xamante ni wàllum information bu jugee ci Sénégal da koy am ci biir télévision bi maanaam fii tamit ci réew mi bépp information bu xew fii ci réew mi ñoom ña nekk Sénégal dinañ ko mën a jot. effectivement dafay nekk télé boo xamante ni que. pour non seulement pour sénégalais yu nekk bitim réew sénégalais yu nekk extérieur yi lay nekk mais tamit sénégalais yi tamit yu nekk Sénégal. ci wàllum société looy si wàllum société nag ñu ngi liggéey ci mbirum ONG. jàppale ñu amul doole jàppale tout tànk yi. ah loolu ñu ngi koy liggéey ci Afrique maanaam ci dëkk yëpp sax. mais fu mu toll nii année prochaine incha allah si Sénégal lañ ci gën a bëgg jublu. manam mhm. lan nga tambalé gum ci liggéey bo xamanteni euh, nit ñi war nañ ci mëna tek teg seen loxo nit yi gis nañu ni ñu ngi siy gis seen bop waaw euh, fu mu toll nii ñu ngi dem ci orphelinat yi Sénégal euh, ñu ngi jàppale village yi ñoo xamante manam amuñu ndox ndox bo xamanteni ne que war nañ ko mëna utiliser ñu ngi leen di jappelé pour def ay teen tu vois def ay hôpital ci ci village yi. ci village bi mais Mouhamed yow loolu noonu ay ay loolu dafa laaj koppar gu bëri kooku boobu koppar yaa ngi moom. waaw ONG nu muy demee nag koppar bi du fekk du du nekk koppar boo xamante ni que ah, yaa koy génneel sa bopp bien vrai que di nga génne tuuti sa bopp mais dafay nekk loo xamante ni que ñëpp si jàpp état bi da si jàpp ah, ñoo entreprise da si jàpp ñu ñëpp ñu dajale koppar gi ba pare mën a dimbale ñu ko soxla. dafa am ñoo ciy liggéeyal ñu nekk ci état bi wala. waaw am nañu mais bien sûr parce que ONG il faut nga liggéeyal ko ak état mais tamit il faut tamit nga liggéeyal ko euh, ak surtout état d'extérieur yi maanaam tubaab yi foog tamit nga liggéey ak ñoom. kon daal maanaam si gàttal mbokk yi bu ñu déggee ki ñu toogal euh, ab homme d'affaires la boo xamante ni ci bépp fànn lay yëngu. waaw. Euh, maanaam gis nañu ci ci wàllum promoteur ngay ngay tëgg ay ay ay soirée yu yu bëree bëree bëri ma ma dégg ci foor ci weewu béy xam nga ñun moom lu ne lu ne ñun ñoo koy foor <laughs> ñu for ci weewu béy ni da nga bëgg indi fii ki nga xamante ni moom moo di Waly Balago Seck moom Mouhamed Waly attan nga ko. <coughs> Waly kay di question la attan sax Waly borom baax la. Euh, bon comme que dañu nekk États-Unis fi nii ñu ngi gis ni nga Waly mi ngi dem Europe euh, mi ngi tëgg euh, Sénégal tamit. te États-Unis fii bon bi fi Wally géejee ñëw xaw na yàgg. bon ñu bëggoon mu ñëw tamit bëggal ñu. ñu bëgg ko def la 4 avril incha allah te muy suñu jour indépendance pour Sénégalais yëpp. wala euh, ñu buggoon rek mu ñëw. maanaam loo xamante ni lu taxaw la loo nga wax ak Wally ba noppi wala. waaw bien sûr loo xamante lu taxaw la ñun kay si lu taxaw rek la ñuy la ñuy <laughs> la ñuy jóg. du rek duñu si lu loo xam ne dafay dëng. Mm-hmm. waaw fu mu tax wax naan nañ moom ba pare léegi dafay ñëw rek euh, tàmbale liggéey bi. incha allah loolu ba fan fan lañ fan lañ koy defee fii ci New York. ñu ngi koy defee ci Queens incha allah euh, ci benn place bu tudd euh, Amazura. Amazura bien sûr tàmbali ngeen jaay ticket yi wala duggagu leen ci cadre ticket wala genre yooyu. ticket yi ñu ngi ciy dugg incha allah fii ak deux semaines incha allah war nañu war a dugg euh, ci ci ticket yi incha allah. kon daal askan bi bu yeboo ñu jàpp ni Wally dina ñëw fii le 4 avril bégal leen. incha allah. incha allah rabbi xamee euh, ñu des ak yow ba tey euh, ci li nga xamante ni moom moo di wasaare célébrité di célébrité boo xamante ni euh, vraiment gis nañu ko ci réew mi muy liggéey di def lu bëree bëri nettali nag si Lamine borom la dàqee milliardaire. amin ma ne ma la ñaanalu ma la. xam naa moo tax man la amin ah, kon yàlla ko hmm. parce que damay dégg damay gis yi nga yëngu dafa bëri. di jàppale société bi. di génne sa koppar di def lu bëree bëri bari si société bi soo man en général loolu ñu may gis ñu koy def ñëpp milliardaires yi la ñuy doon waaw xam naa fee waxee moo tax man la amin rek waaw <laughs> koppar gi fu mu mu toll <laughs> ah ATM waaw eh. ah, koppar gi nag amul solo lu gën am solo mooy liggéey bu ñuy def te Sénégal di ci gis seen bopp eh. loolu moo gën am solo ok kon ñu ñu ñu ñëw kon ci li nga xamante ni moom moo di euh, réewum Sénégal euh, sàcc nañu tamit ci weewu béy nii euh, yow da ngaa laal ci ñaari pàcc lu jëm ci wàllum Mali. sa sa sa waajur bu góor yàlla def nii moom mooy ñi jiite ci wàllum ceytu ci ci ci ci ci ci maanaam avocat ci ñu mag ñi nga xam te ñuy jiite président yi nekk foofu nga xamante ni moom moo di Mali loolu lan nga ci wax. waaw euh, sama waajur bu góor moom euh, avocat la euh, moom mi ngi nekk CPI moom mooy International Criminal Court foofu lay foofu la nekk bon maa ngi koy ñaanal sax du passage hein? te mu yàgg fi te wér. moom nan la tudd. Moriba Diallo. Moriba Diallo. Mhm. mais yow malien nga wala sénégalais. ah bon man nag sénégalais naa nag. Ah, bien vrai que xaw bien vrai que xaw naa rax tuuti ci malien. Mhm. mais nag sénégalais la maa bi moom moom malien la wala. waa paa bi sénégalais la ba léegi waaye dafa mu tout dem Mali yàgg fa mais ay sénégalais lañ. maanaam yàggaay yi bi mu yàgg Mali dem ba am fa nationalité moo ko jox garaat yooyu yëpp mu am foofu. effectivement. kon léegi ñu des ba tey euh, ci li nga di euh, walum liggéey bi ngay bi ngay bi fi liggéey ci réew mi euh, lan lan ngay liggéey dëgg-dëgg loo xamante ni tey nit ñi mën nañ la wax ni ci li nga jàpp maanaam ci wàllum promoteur wala ci li ngay def nit ki dul.

si madame si gâteau, non là ko me expliquer ci ci wolof pour programme, tu comprends. ko comprendre. Mhm. tu vois loolu laay jaay énergie. Mhm. loolu loolu mooy sama liggéey euh, like permanent. Mhm. mooy sama premier liggéey. léegi yu si des a yeneen business yu la rek mais sama liggéey moom loo xam ne dama ci spécialisé wu loolu mooy énergie. Ah, euh, kon kon maanaam defe naa mbokk yi euh, leer na ci am ki nga xamante ni moom moo animateur best of Animator in the world ATM sec, siècle New York.

comme naka cela veut que bon soo xoolee bu baax euh, bien vrai que suñu dëkk am na démocratie euh, président Soufalo faloo kee toog mais ba léegi war nañ ko maanaam gën a setal. waaw lan yow si si sa jàngat. en tant que jeune. xam-xam bi nga am lan ngay lan ngay wax ni mom moy tax mu gën a set. li may wax ma mu gëna sét moy nit il faut que ñu génn voter té tamit nit tamit foog ñu bàyyi sen xel ci euh, politiciens yi sen idée parce que si on toll gis par exemple élection yi passe, gis ni que dafa carte gars voter tu vois donc c'est très très important Je n'y pas xel ba telle a euh, cest campagne tu vois parce que campagne c'est carte de sorte que su su euh, Madame, si jotee du ñu am benn problème mu carte mais mais est-ce que problème mu carte d'identité yi problème sénégalais ou la wala problème mu gouvernement Oui, mais mais problème mu gouvernement bi la parce que ce fait ni que man dama bëgg voter nga ne ma pour ma voter sama carte d'identité bu njëkk bi baaxul il faut que ma am carte d'identité bu bees ma dem déposer carte d'identité bu La carte d'identité bu bees bi teelul génn élection yi c'est à trois semaines Je vais voter xam loolu doo mën a voté moo tax ma ne nag Sénégalais yi dañu war a génn bépp Sénégal def Touba ñëpp am seen problème euh, seen carte d'identité de sorte que euh, problème carte d'identité bi dootul tegu. comme génn comme nan marche wala dem jëli ji seen i carte d'identité wala lan. déedéet maanaam doo xaar ba élec ba nga xam ne que élection bi fii ak 3 mois la ngay dem lijjanti carte d'identité da ngay li liggéey teel a jënd sa carte d'identité lépp un an en arrière de sorte que su si jotee da nga dem voté. kon yow bu si gàttal boo da nga bëgg wax ni euh, problème mu carte d'identité yooyu li ko indi mooy sénégalais yi ci boppam ñoo teelu te jëli ji seen i carte d'identité moo tax mu am problème. loolu noonu c'est seulement à 10 pour cent ci problème bi beneen 90 pour cent bi mooy nguur gi xamoon nañu ba pare que su fekkee na nga bëgg voter il faut nga soxla carte yu bees ñoom tamit waroon na ñu communiquer sénégalais yi que da ngeen nar di ngeen soxla carte bu bees pour voter donc ça veut dire que ça veut dire cent. ci nguur bi la mais 10 tamit ci sénégalais yi la. parce que ñom demu ñu geustu information. lan nga gisee léegi ku jég politiciens yi ñu ci mel Sonko ku ci mel Karim wad mom ba légui ne delluwul ca réew ma ah euh, Macky Sall mom moy moy moy moy mooy njiitu réew ak euh, Idrissa Seck ñeneen ak ñeneen ban jangat nga am euh, ci ku jég politique bobu waaw Macky Sall Idrissa Seck Karim Wad, ñoom ñëpp c'est des figures politiques du Sénégal ñoom kenn mënu leen génne ak Sonko tamit bien sûr ñoom ñëpp kenn mënu leen génnee ci Sénégal ñoom c'est les figures politiques du Sénégal ku ciy nekk président nag xaw ma wax dëgg yàlla mais li ma la bëgg wax ni que ñoom ñooy figure politique u Sénégal ci biir euh, loolu non ngay wax gis nañu ni euh, politiciens yi ki ci gën a ki ci gën a ki ci gën a di wax maanaam jamono ji ki nga xam te moom mooy démarche di def ay ay mbir euh, Sonko la gis nañu mi ngi wax ci wàllum pétrole bi mi ngi wax ci wàllum gaz bi 94 milliards yi problème yu bëri bëri bëri mi ngi koy souligner en tant que en tant que koo xamante sa xam-xam xaw na naaj ci tuuti euh, lan ngay xalaat ci li nga xamante ni moom la Sonko di wax. waaw Sonko mi ngi sulli information pour Sénégal mais politique dafa nekk loo xamante ni que dafa doy waar. Ablaye Wade balaa moo nekkoon président fait que Abdou Diouf mi ngi nek président mo une opposition de souli information pour réew comme niko Sonko fait, défé mais Ablaye Wade bu mu yégué président réew mi dañu dem ba ne bëggatuñ ko donc bien vrai que Sonko mi ngi souli ay information mi ngi casse cela ne veut pas dire que su nekké président fay nek président bu Diouf c'est pas garanti. comme maanaam yow ci gàttal ni ma dégué, déggee maanaam yow euh, amul qualité bu nga jox Sonko 100%, pour cent quoi c'est pas que amul qualité bu bu ma jox. maanaam qualité maanaam euh, yaakaar boo xamante ni yow mën nga ne kii bu nekkee président lii muy wax ni yëpp dina ko def ci réew mais lol noonu Sonko munul mun amul benn garantie boo xamante ne que mën na ko comme quoi que su nekkee président dafay jubal réew bi da karam. amul garantie boobu noonu. parce que fu mu toll nii ba léegi amul poste boo xamante ni que mi ngi ciy def ay euh, poste boo xamante ni que mi ngi ciy liggéey réew bi te ñu ciy teg seen bët. kaas yi bëri na trop. wax yi bëri na trop mais tamit des fois dafay am solo ñu jël kaas yi teg ko de côté ñu jël euh, wax bi teg ko de côté ñu liggéey biir réew bi. kon ci kon yow ci li nga xamante ni moom ngay dégg ay quatre-vingt-quatorze milliards yeeg pétrole beeg yooyu noonu yow est-ce que am nga yaakaar ni li li Sonko di génne loolu euh, dëgg la bu wér. wax dëgg yàlla nag du toog fii di fenn loolu dëgg la parce que xaw ko dara wóoruma ci mais li ma la bëgg expliquer mooy formule lu Séné formule lu nekk président Sénégal suñu soo gisee histoire du Sénégal lu mu tëddee.

ñu fal ko c'est pas seulement que nit ki dafay kaas wax ni ko nguur gi mi ngi lekk suñu xaalis wala nguur gi mi ngi def euh, lu ko neex que suñ ko falee moom moom mooy nekk président buy baax ba léegi amuñu garantie foofu noonu si sa jangat ci li nga xamanteni mom la maki jotta tok ci kaw réew mi euh, ban liggéey nga gis ni euh, liggéey nako ci réew mi loo xamante jaar na yoon ak lu la metti ci li nga xamanteni defuko ci réew mi. en général président yi suñuy soog a dugg seen mandat sen premier mandat en général. du liggéey bu ñuy da fay nek euh, continuité bi fi nguur bu njëkkoon nekkoon. Je comprends Madame, Gourou, c'est un fi Le programme président bu bees le premier mandat c'est du dara continuer programme Bob le programme bu fi nekkoon le rectifier programme pour pour pour continuer en général le deuxième mandat du président c'est le ligue du commencer ci deuxième mandat bobu noonu lañuy jallé ci troisième mandat bi ban jangat nga ci am ndax fi nek ni nii euh, tension yi taxaw na ñom Sonko yenen ak yenen te gis nga ni euh, lay wad jaaroon na fi ci troisième mandat gis nga nu mu mel noonu ban jangat nga am ci bi di ñew ban jangat la ci am moy constitution bi nee nañu deux mandats ñaari mandat da ngay def sa ñaari mandat am xel dem su fekkee da nga bëgg def troisième mandat nag loo ci fekk yaa ko def sa bopp kon baax na euh, mbokk yi ba tey ñu dess ak yeen ci li nga xamante ni moom moo di wasaare célébrité ah ngeen ci am jantal euh, animateur best of animateur in the world fii ci New York laata ñuy dagg li nga xamante ni moom moo di émission bi ndax xam nañu ni euh, ñu ngi ci cappaandaw li ñu wax ci biir réew mi naka nga gisee sénégalais yi fii ci réew mi avancement bi nekkin bi naka nga ko gisee. waaw ni ma koy gisee c'est positif parce que maa ngi gis sénégalais yu bëri yoo xamante ne que ñu ngi ñëw ci réew bi di daan seen doole tu vois di ah, am nañoo am ci open ay business hein, di ci di ci di ci di ci liggéey di embauché tamit yenen sénégalais yu liguey mhm. pour l'instant c'est positif manam fi ci biir Amérique waxuma Europe nak mais Amérique pour l'instant c'est positif. positif mais lolu deug la mais est ce que tay gënu woon neex ñu nekk ci suñu réew li ngeen di nit ñi di def fi nit ñi di ci liguey

ca réew ngeen jëf mbokk yi du def lu dul di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ñoo ngi doon ànd ak yéen ak ki nga xamante ni moom moo di euh, Mouhamed Diallo euh, doon waxtaan ak yéen ci wasaare célébrité gis ngeen tey li mu indi euh, ci waxtaan bi li ñu bëgg wax sax yëpp mënuñu ko wax parce que temps bi moom moo ñu ko mayul du ñu def lu dul bàyyi ko moom mu tàggatoog askan bi waa maa ngi tàggatook ñëpp di niw ñëpp i tamit jégalu ci wax bi lu ci baaxul rek maa ngi jégalu jërëjëf jërëjëf